من يمزح عن النبي في خزينك من بلغ خمسين من يمسخ عن الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك asalaamaaleykum wa rahmatulah bu ngeen ko déggee nag xam ne bés bu màgg ba dafa dee si xew-xewu diine xew-xewu lislaam fan lay amee ca Touba Saloum màggal gu màgg le 26 février lay doon 2022 maanaam ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weerum lay doon foofee ca Touba Saloum bés bu màgg ga nag ñu ngi ciy woo ñëpp di ci ànd ak ñëpp mbokku taalibe yëpp bàyyiwuñu kenn rawatina njabootu Serigne Bassirou Seck gi nee nañ bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp fépp waay mën a nekk ñu ngi lay woo nga ñëw ca bis boobee ñu màggal ko foofee Touba Saloum kon bàyyiwuñu kenn waye tamit dañuy fàttaliwaat rek fatali suñu bop di leen wax ne addiya ja yi nga xamantene mom lañ warlo ñi ngi waaj ñek ñepp nak ñu ñu wàccoog moom bis ba waye di ñaan tamit na ñepp teel a ci bis ba japp ci liggéey ba mu daal di jaar nam daan jaaré ci barkeb Serigne Bassirou Seck waye nak ci ndigalu ki nga xamantene ne Cheikh Alioune Seck di khalifa Serigne Bassirou Seck nee mu ngi leen di wo ci bis bobé ñu taxaw ko comme nañ ko daan taxaw ba mu jaar ci yoon ndax bisub diiné la bisub l'islam la bàyyiwuñu kenn fépp fu way mëna nek ñing lay yittewoo ci bis boobee ca Touba Saloum kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax le 26 février lay doon foofee ca Touba Saloum bàyyiwuñu kenn bu nu xëyee di nag programme bi nii lay demee bu ñu xëyee dinañ am njàngam alxuraan mi wàccee kaamil yi waaye programme bi dina wéy jàngkatu xasida ya ña nga fa ku nekk rek ma nga fa kon nag mi ngi noonu bés baa ngi noonu bu ko kenn fàttee le 26 février lay doon foofee ca Touba Saloum mboo mbokku jullit yi mbokku taalibe yi bu ko kenn wutee ci bis boobee waaye nag ñu wàccoog la nga xamante ne mooy addiya ya ak lépp loo xamante ne war nañu ko te mi ñaan di soññaat ñëpp rek nañ ko matalee di ñaan ñëpp tamit nanu teel a ñëw jàpp ca liggéey ba foofee ca Touba Saloum bés bu màgg la bés bu rëy la bésub diine la bésub lislaam la foofee ca Touba Saloum kon nag mi ngi noonu moom le 26 février lay doon incha allah. bu ngeen bëggee jot suñuy vidéo da ngeen di abonné suñu chaîne bi Samb Xasida TV. ci xasida yi rek lan nga la xam sëriñ bi. Samb Xasida TV ci xasida yi rek nag incha allah ci xasida yi rek lan nga la xam sëriñ bi.